salaamaaleykum gars yi seen rajo déglukat yi maa ngi la tam si jub maa ngi nuyu bu baax a baax a baax a baax ah waxi nga ci ñëw dugg nag wante li fi nag am yenn fan yii yëpp suñu loxo moo moo téye ci ay programme ay programme yu du jeex gàmmo kawun bi dem nañ fa ak am na beneen buy mag buy ñëw am gàmmu ihi nag bési Simon Sène mi nga xam ne at bu nekk daf di def anniversaire am fay na li am na koy xale ba yowet foofu may may ma tuuti am ci yokkal li fi naka lañ koy te Simon Sène ajuma ajuma bi ñëw nii mooy 10 si weeri juin bii nii bu muy gannaaw ëllëg si lay si lay event tam bi mag bi moo def Sorano si guddi so anyway li fi naka ñu ñooy sponsor event bi as usual waaw wante li fi naka lañ koy tee sa ob suñ suñ ton si event boobu noonu am nañ li fi naka lañ ko suñ gars yi foofu la ñu dem ñu ñu présenté yu nekk si féeri ñu dee liggéey si Seereer Rajo ak ñu dee liggéey si Seereer Resource Centre su dañ fa nekk wante am nañ amal nañ leen jëg leen déglukat yi amal nañ leen price lañ price lañ war def competition xam naa ne ticket si difficult na dafa difficult pour am difficile pour am ticket pour dugga foofu noonu especially si time bii nii nii tey ñu ngi ko doon li fi promoté bu yàgg si weer yële yëpp wante li fi naka lañ koy tees am am na ñaari ticket yooyu noonu suñ déglukat yi rek ñoo ko ñoom lañ koo jox déglukat yi déglukat yi Seereer Rajo yi wante da nga am dañ am da ngeen am pour dañ am pour laaj leen ay question ñetti question su nekkee ne am ngeen mun ngeen ansa boobu noonu xam ngeen ansa yi xam ngeen lan mu laa ngeen tontu si loolu nañ leen wax yëpp naka la ñu naka ngeen a inter competition bi ak yooyu noonu moo tax ku ma am si ku ma am si léegi bi mooy jokkal la ma ngoom jokkal la ma ngoom duwaay Seereer Rajo fii nii yàgg na fi jokkal maa ngi laa nuyu bu baax nuyu ba nuyu woon te mbokk yi Seereer Rajo yaa ngi nekk live.
waaw Tamsir maa ngi lay fay maa ngi lay nuyu baax a baax a baax a baax di kontaan ci laaj bi nga ma invité waaw am xam nga Simon Sène dafa am organisé anniversaire am maanaam le 10 le 10 juin te Seereer Rajo sponsorisé ko. Seereer Rajo nag yebal fa ak benn délégation délégation war fa dem moon a yóbbu fa teraanga léegi nag ci biir sponsor boobu am Tamsir dafa am Seereer Rajo dafa am ay ticket yu moo xam ne ko jagleel auditeurs yi maanaam ticket yi nag pour nga gagné ko foog nga répondre ci trois questionnaires questionnaires yooyu nag boo ci tontoo nag ah léegi am nga droit ñu jox la benn ticket. nga mën seetaan Simon Sène fële dañe Sorano ah mën a gis aussi ñi nga xam ne équipe Seereer Rajo nga mën leen xamante ne mën leen gis bu baax waaw loolu daal moo moo nekkoon waxtaanu ngoon bi ci ci Seereer Rajo comme ça auditeurs yi daal déglu question yi nga xam ne moom la ñuy jox leen di jox ñu jëm koo tontu buñ ko tontu ba trouvé ko rek am nañu billet pour mën a dugg dañe Sorano waaw ñaari ticket la nag ñaari ticket la nag mais pour auditeurs yi ñoo ko moom képp ku trouvé questionnaire yi rek ah am nga droit ci ticket boobu kon nag gaaw leen ci gaaw kii bi nag suba nag lay clôturer suba le 9 la 22 lay clôturer waaw pour maanaam attribution ticket yooyu kon nag yéen auditeurs yi comme ni ngeen ko déggee rek ah questionnaire yaa ngi ñëw bu ko defee ngeen tontu ci. ah mën na am chance pour mën a seetaan yi Daniel Sorano Simon Sène fi mu defee waaw waaw tam si ma bàyyi ba ci kanam encore maa ngi lay bàyyi ba ci kanam encore ñu jéem a xuusaat ci mbir mi encore dégg nga boo amee loo ci wax nga wax comme ça ma yokkal la ci encore baax na kon waaw kon nag yéen a dégg yéen a dégg di jokkal la magam comme ni mu ko waxee rek waaw so ñaari ticket yooyu noonu pour déglukat yi Seereer Rajo rek la yow yow yéen naka lañ ko ci si bu yàggu laa dox si avant an awa heure bi passé rek laa doon waxtaan si mon si lay si lay lay bi am kontaan na yéen naka lañ koy teel sa bisam bi bis bis bu xumba lay doon te xam ngeen ne lafu naa daaw foog ma fàttale ko jokkeel daaw foog naa def ko cancel du def ko canceloon because coronavirus bi so defu ko woon wante amoon na daawati jëg fona defoon nañ ko bés boobu laa ñëw ne ñoom di ñoom Demba Sène ak ñoom Moussa Koro Sidi bi ñu dem teewu teewu bés bi wante del si waat na mu nekk nii waxin at bii nii at bii dafa xumba bu ñuy dafa xumba xumba xumba boo xam ne su nekkee amu leen ticket dem ni am seen di jël di try ngeen jënd ticket def dem leen si lifin naka lañ ko def nañ ko si YouTube channel bi def nañ ko xam naa si fan yi yéen a ngi ko dégg si Seereer Rajo lifin advertisement bi waaw lifin nag about five cinq mille rek lay jot ticket wante yéen yéen ñi nga xam ne yéen ay comp inter competition ñi nga xam ne ñoo gagné ñoom ñoom duñ jënd ticket ñoom ñoo leen ñun ñoo leen a jot ticket ok nañ ko jokkal la ba ngom xaaral ñu pareyaas nag ñu at laajte sànni ay question yi nga xam ne mun nañ bëgg a si tontu suñ dëkkukat yi tontu mooy ñetti question ñetti question yi ñetti question yu simple la simple la simple la lii ko xam ne déglu déglukat yi seen rajo da nga da ngay déglu seen rajo war ngaa xam que war ngaa xam an an nga an nga tontu yii nii waaw question number one question number one question un what was Sierra Radio uh, what year was Sierra Radio founded ban at lañ lañ sos Sierra Radio ban at lañ ko sos waxuma ban at lañ ko launché de ban at lañ ko sos xam nga bu nañ ko sos wante launché wuñ ko xaw ma launch launching ko at beneen si ixe naka dañ ko dañ ko dañ ko fa dañ ko dañ ko sos ba pare launch ko si beneen at bi ban at nag lañ ko sos waaw so boobu mooy numéro un ban at lañ sos Sierra Radio ñaareelu question bi mooy si ban dëkka si àddina fa la séeréer rajo nekk ban dëkka si àddina fan la séeréer fan la si studio bi nekk fa fan fan la nekk fa fan la séeréer rajo nekk ban dëkka waaw loolu mooy ñaareelu question bi ñetteelu question bi amoon na indi woon nañ si moon seen si at yële passé pour mi def ak ñun live ban at la séeréer rajo ban ban at lañ interview séeréer ban at lañ njëkk a interview si moon seen si séeréer rajo ban at lañ ko njëkk a interview ok waaw so loolu mooy question su nekkee jokkal jok mën nga mën nga ko mën nga leen ko wax si seen baati sa sénégalais yu neex ko defee ñoom ñu dégg ko
waaw comme ni nga ko waxee Tamsir question yi moom yaakaar naa question yii la dañ ne seen rajo ban année lañ ko implanté maanaam implanté bañ année lañ ko samp ban année lañ ko samp mooy implanté ban lañu samp seen rajo ñu tegaat ci ne ces rajo ban la commencé diffuser ay émission waaw ci réseaux sociaux yi beneen bi mu ne Simon Sène ban at la ko ces rajo invité woon ci ci ci station muy wax direct ak ces rajo waaw ñetti question yi moom la ñu posé encore nee na encore ces rajo ban dëkk lañ ko def ci adduna bi ban dëkk lañ ko implanté ban dëkk la nekk. yooyu moom wax dëgg question yomba ngi noonu yu neexam toog la encore ah kon nag yéen auditeurs yi ah bu ngeen bëggee gagné ticket yooyu dañuy tom da ngeen di tontu ci question yooyu.
waaw ñetti ñetti question rek la dama xaaral am jub nga si benn bi si am question question premier question bi luñ laajte rek mooy ban at lañ ko sos rek ban at lañ ko implanté waaw boobu rek lañu ñu waaw soxla ngeen wax ñu ban at lañ ko lañ lancé lañ ko lancé si si si hit bi waaw soo ban at lañ waaw waaw soo ban at lañ ko sos ban at lañ ko sos ban ban dëkka la séeréer rajo nekka ak ban ban at lañu séer la la Simon Sène appearance première appearance am si séeréer rajo ban at la.
waaw d' accord léegi ma reprendre question yi encore parce que y' avait un malentendu man ak Tamsir Diouf dafa ne ban année lañu implanté séeréer rajo ban at ak fan la séeréer rajo nekk ci adduna bi ban dëkk lañ ko def nañ ko samp. encore mu ne ban am ci moo seen mos a am interview ak seen rajo ñetti question yomb ngi noonu ngeen tontu ci ku bëgg gañi billet bi nga tontu ci ci li gën a gaaw da ngeen di gaaw nag parce que ñaari billet moom ak i auditeurs yu bari moom il faut ngeen profité gaaw a dugg voilà léegi daal ku dégg message dégg kii bi nga dugg waaw ok fu mu nekk ne ku bëgg a inter waaw ku bëgg a li fi naka lañ koy tee sax compétition bi ku ku xaara compétition bi defi naka day moom soo ne soo bëggee tontu si si question ñetti question ñetti question yi da nga ko war a da nga ko war a ans da nga ko war a ansa yëpp correct ko defee naxa nga naxa ngay naxa ngay enter compétition bi mun ngaa dem si séeréer si Facebook soo demee si Facebook nga tappe séeréer rajo S S I I R I I R R A D I O ko defee nga ñëw ne ñu foofu messenger séeréer rajo facebook messenger mën nga ko ñëw directement nga wax ba pare nga make sure ne nga def sa sa sa sa téléphone number sa whatsapp téléphone number ko defee nañ la call ëllëg ku gañee ku gañee ëllëg ëllëg fukki waxtu si ah si heure Sénégal ak heure Gambia si la ñu tëj compétition bi si la ñu annoncé ak ñan ñoo win ok ñan ñoo gagné soo mën ngaa dem si séeréer su soo soo nekkee da nga bëgg a enter si compétition bi dama si Facebook séeréer rajo Facebook nga enter ko foofu noonu nga ñëw nañu message foofu directement si Facebook si Facebook Messenger waxuma waxuma Facebook si boppam de Facebook Messenger so foog nga am app boobu noonu Facebook foog nga am Messenger app. oo mën mbaa mën nga ñu mën nga ñu ñëw ne email nga da nga koo def si info info at sereer dot com s e e r e e r dot com mun nga soo ñu mun nga ñu ñëw directement email info at sereer dot com which is info at s e e r e e r dot com maa nga ñëw nañu ko skype da nga da nga dem skype nga dem nga tàppe séeréer radio s e e r e e r r a d i o benn woot la du amul benn space amul dara ko defee rek nga nga ñëw nañu foofu directement sa lifin ba am sa sa sa tontu ak sa téléphone number der sa whatsapp téléphone number ko defee na ñun dañ la arrange sa ticket di nga gis free pour dugal lifin fa nii du nga fay dara gis nga lii yëpp du jaru nga fay dara free lifin la doo am doo am pour fay si am si messenger facebook o internet o lifin yooyu noonu yëpp amul amul amul fay téléphone téléphone bill déedéet jaru nga téléphone direct so soo demee foofu noonu yow nga bàyyi sa soo soo tontoo nga bàyyi bind foofu sa téléphone number sa whatsapp téléphone number ko defee suñu lifin ka képp ko xam ne gagné na rek ñaari ñaari ticket rek la ku gagné ko defee ñoom ñun nañ la koo directement ëllëg si guddi ko defee ñu wax ne ñeen ñoo gagné ko defee nag ci ëllëg sa nag ñoom ñu gars yi ñoo pare pareyaasal la nga mën a ñëw seetaan Simon Sène foofu ngay nekk ak gars yi xëy na xëy na sa nga gis Simon Sène maa ngi waxtaane Simon Sène xëy na dinga dinaa la jox dinaa try mix suma suma gars yi ñu mun la introduce Simon Sène nga amal na moom nataal ak yooyu noonu so xam naa suma gars yi nañ ko arrangé waaw ah ba pare li nga am pour am li nga am tam di am pour mu sa favorite présenté ñu dee ñu dee présent fii nii si Séeréer rajo ñoom kii nañ fa nekk ñoom jokkal la mu nga moom bu nekk si lañeen bi mu nga xam ne moom mooy suñu music manager bi loo képp loo xam ne dafa jàddu si yooni music si mbiri music rek moom dafa moom moo ñu ko di arrangel di jéem ak dafa nekk Makere Ndiaye am ngeen ko moom tamit moom moo ko bon suñu event di gàmmo bi ak yeneen te yeneen te yeneen musukooro suñu jigéen ji na fa nekk musukooro Sidibe na fa nekk Saliou Thiaw na fa nekk ak Ibrahima Niass Samb El Hadji Ibrahima Niass Samb historien bu mag boobu noonu doo nekk doomi Saloum Saloum moom tam na fa nekk ak gëneen te ñeneen te ñeneen yeneen artistes tam xëy na yeneen artistes ñi nga xam ne dañ dee diir si ñoom especially artistes artistes séeréer yi xëy na ñoom ñu ñëw uyu si Simon Sène soo bu mënumaa wax yëpp mënumaa bëgg bëggumaa wax yëpp bëggumaa joxe yëpp soo surprise day lay doon xam naa ne bés bii moom atam bii nii te dafa ko woon daaw soo at bii moom dafaa xumba moom mu dafa dégg di ji am kii jokkal.
waaw maa ngi lay dégg Tamsir waaw.
waaw mun ngaa.
comme ni nga ko waxee.
waaw continuer continuer.
waaw comme ni nga ko waxee. waaw comme ni nga ko waxee réponse yi dañ ko war a posté ci ñetti kii ñetti possibilité mun nga koo posté ci Skype mun ko posté ci WhatsApp seen rajo mun nga ko posté également ci devenu adresse email am boo xam bi info arobase point seereer point com boobu aussi possibilité pour nga posté sa réponse foofu voilà ñetti possibilité nga am Skype WhatsApp ak adresse email boobu ma joxe léegi waaw kon nag mun nga mun nga mun nga joxe waati email adresse bi joxe joxe waati email adresse bi pour ñu bëgg ñu bëgg a enter competition
waa email bi su ma juumul info arobase seereer radio point com la.
non je crois boobu la.
non yeah.
boobu la.
info info i n f o at waaw mooy info waaw yeah info waaw.
uh, waaw serer dot com arobase yeah at se waaw arabas serer s waaw s waaw.
e e Voilà.
r e e r dot com waaw voilà mu ngi bokk boobu la boobu adresse email bi waaw whatsapp bi aussi du du du whatsapp du whatsapp facebook facebook facebook messenger waa facebook waa facebook facebook bi facebook bi aussi ah nga jox leen ko foofu.
waaw facebook bi serer radio rek la soo defee soo soo waaw so, se- facebook bi da nga dem si voilà face c'est rajo rek waaw séeréer rajo rek la soo defee nga nga dem messenger nga dem ca Voilà, boobu la, voilà.
skype tamit skype tamit benn word rek la séeréer rajo s e e r e e r r a d i o la. Voilà.
séeréer rajo soo dafa simple dafa simple soo loolu la am ñun xëj na xëj na ñun lifi naka ajuma gi ñun nañ ko obvious ñun ñooy cover event bi ñun ñooy sponsor event bi ñun nañ fa nañ fa suma gars yëpp nañ fa nekk gars yu Sénégal yu nekk Sénégal suma team bi yëpp nañ fa nekk pour ko nañuy indi ñu fa nekk yëpp wante hopefully maa ngi leen maa ngi leen a win maa ngi maa ngi leen a wisher um, bon chance di jëm jokkale ba nga wish leen bon chance ko defee ñu nga xam ne ñoom ñooy inter competition bi ëfti boobu suma pare nañ def yii nii yëpp am si suñ soo demee si face Séeréer rajo Facebook page bi ak Séeréer Resource Center Facebook page bi dinañ ko fa ajouté nga xam ne yëpp na yëpp information bi ak competition bi ak info questions yi yëpp dañ leen ko dañ ko bindal fu noonu su nekkee déglu buñ leen koo lifin rek mu ngeen koo déglu foofu noonu mu ngeen koo liire foofu noonu koy fi ngeen xam naxa ngeen ne inter competition bi so maa ngi leen a wish bon bon chance di jokkal wax leen bis bis leen bon chance déglukat yi ko defee ñu paa génn fii nii xam naa yaa ngi amee ne nee ne mu ngi foofu noonu foog naa dafa bëgg a in dafa bëgg a bokk si compétition bi boobu te bu nga nga maa ngi ko dégg si suuf mu ngi jooyantu.
waaw léegi daal Damsir. na gars yi profité rek parce que suba lay clôturer ah suba lay clôturer suba moom suba lañ koy clôturer.
waaw bu am question daal bu doon commencé dugal question yi léegi. bu ko defee ak ñu def dépouille bi ñu def dépouille bi seen ñi trouvé ñu mën a am xam ñu am seen i kii. parce que day am dépouille ñi trouvé ñi xam. ñu trié ko ne diw ak diw ñoo gagné ñu mën a seetaan si nag lu xumb na la parce que ci moo seet moom xam nga anniversaire day neex parce que ay kilifa yëpp fay nekk.
waaw artiste fay nekk. ak mag moo famille neex yi. kon nag à ne pas rater kenn war koo rater. kon nag ngeen góorgóorlu ci question question yomb la nag question jafewul yu neex la yomb la yooyu ma tontu la kon nag auditeurs yi nag jublu leen ci dès maintenant fii ba suba ngeen kii ngeen trouvé question yi. voilà loolu daal moo fi nekkoon daal loo xam leneen ko ñu nga xamaleen ko.
jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf Jokal so anyway maa ngi na wis bon chance yéen ñëpp kon nag ngeen jë koo xam ne ñu ñi nga xam ne defi nañu inter competition bi obviously mu soo leen soo leen ko inter bon chance ñi nga xam ne bu mën a inter wante fàtte naa su nekk yéen a ngi dëkk Sénégal ñu ñu ñu mën a inter competition muy obvious ñi nga xam ne ñu ñu ngi dëkk Sénégal su dee soo leen dëkkee Sénégal waaw ci Sénégal lañ ko Sénégal Sorano lañ ko defee Sorano la la seen seen Sorano foofu la foofu la event bi amee ah muy aajo bi ñëw waaw Sorano su nekkee yéen a ngi dëkk Sénégal oo soo leen dëkkee Gambie bëgg a tra bëgg a bëgg a tukki du dem Sénégal fine su oo ngeen dëkk Mauritanie fine su nekkee ne dëkku leen Sénégal yéen a ngi dëkk bitiw réew wante xam ngeen ku koo xam ne fa sopp seen Simon Sène te moom mu ngi dëkk Sénégal mu ngeen a inter competition bi si seen si seen behalf seen si seen si seen lifin behalf ko defee nag wante ci da ngeen jógee di ngeen ñoo jox seen téléphone number ñoom ñooñu noonu ko defee oo oo yow si sa lifin nag sa téléphone number ko defee yow ñuy liyee sa yow su nekkee gañee nga kon kooku noonu mi tax mu nga ko mu nga ko inter su nekkee yaa ngi dëkk Amérique fa exemple nga bëgg ko xam ne xam ne xam ko xam koo xam Sénégal ko fu noonu te nga xam ne dafa bëgg a dem dafa bëgg a dem si show bi wante amul ticket mun ngaa mun ngaa mun ngaa inter compétition bi si moom peut-être wante turi mobile phone bi kële sa sa xarit boobu noonu bu nekk Sénégal moom la ñoo soxla ok voilà so jërë ngeen jëf man a tam si Diouf jokkee la ma ngo ma ngi noonu maa ngi leen a gërëm di leen sant jërë ngeen jëf beneen yoon ok fii yéen a bii mooy Séeréer rajo